télévision uh-huh. wax ni rapport bi genn na wala bok très rapport bi genn na ye ñaar sax amna ci contentieux bo xamanteni am ngeen ko ci lepp ciol product la Mame Mbaye Niang waaw mais égalel wax ji dagge wuko fofu de da ngay lim da ngay wax li Amadou Ba di wax oui égalel li Amadou Ba Amadou daf nii la waaw lool la wax xaaral dama lay leeral oui dama lay leeral leeral Amadou daf ni moom indil nañ ko pré rapport mais mom loolu mu ci gis gisu ci dara luma takal taqal te nee man sax mako bind laaj ko lolou la wax de neena mom limu gis man amul dara luma ci takal lu waral kon su frustration. xaaral xaaral parce que dama dañ ci frustré dañ ci mer. dedet oui non non xam nga dang ci mer bi yëpp. oui non Amadou Ba moone ne Mame Mbaye dafa daf ci mer. si dama ci mer la mo ci waral mer bi. mais lima ci mer moy dama ni ko bu fekkee ni que li nga ma wax nii. parce que mom moma wax ni que amul. amul. ma ne ko bindal démenti voilà démenti boobu xëy na ci émission boobu la ko soog a defe te période boobu yéen ñëpp suivre ngeen ni que heure bu ma demee assemblée gisaguñu kayit bu koy démentir waaw xaaral rek xaaral xaaral kayit bu ko démentir kay am na bi soo ko waxee police dafa def réquisition IGE IGF dinañ ci ñëw boo bëggee mu leer rek dinañ ci ñëw donc moom loolu ñu génne woon ci mëno ko ndayale kenn ci kuko yobbu tribunal do am deug tay dina len wax lutax kuko yobbu tribunal do am deug bi ci ñëk moy lolu ibrahim sek publier ordre de service liñ ci wax amul ordre de service ku xam administ en tout cas Ousmane Sonko bi jangé ENA amul droit def erreur bobu parce que jang nako xam nañ ni que ministre ta signer ordre de service ci contrat bi taxawugul preuve li ma lay wax ordre de service bii ñu publier maa ngi nii gis nga yéen koy publier lee ca kaw nële ca côté bële mooy numéro contrat bi contrat bu amul nan lañ koy numéroté am déet déedéet yow ordre service bi nga signé dañ ne la da ko signé avant contrat bi am waaw ordre service bi nga signé numéro contrat baa ngi ci kaw mooy ba ngay signé ordre service bi contrat bi am na donc loolu mooy wàllu bi njëkk a wane ni que du dëgg beneen wàll bi mooy nee nañ euh, man maa boole mën naa wax tur bi ah Maimouna Ndour Faye ak benn ak Prodac mais loolu ku ko yóbbu tribunal ma ma tëj la parce que dinaa indi kayit yu wane ni que Maimouna Ndour Faye Prodac mosu koo fay. 63 millions yi. 63 millions yooyu. du xaalisu Prodac 63 millions yooyu xaalisu euh, Moustapha Bala. Euh, non, non non tout qui est Moustapha Moussa Khadimba, 63 millions Khadimba, moi, j'ai 31 millions Daniel m'a moom Green 2000 J'ai 32 millions ci le boppam parce que tout simplement dans doon euh, campagne de vulgarisation des domaines agricoles je n'ai pas man budget te télé yi donc il bénéfice mais vous avez fait la campagne bi

mais rapport bi sax waxoon nañu déglu Jean Pierre Senghor Mamina Daffé. xam nga ñooñu la ñu déglu est-ce que man gis nga ñu ne déglu nañ ma. Mhm. balaa ngay libérer imam dinaa. dafa kaw laaj moo tax non parce que yëf yi dafay laaj waxi citoyenneté. ak wax sa diggante ak yàlla. ca mhm. foofu buñ fa eggee donte buub su li ngay bëgga doon sëriñ yëpp. Mhm. xëy na foofu werante bi doo fa mën a nekk. donc man musuma wax ay waxi man dem naa ba ni leen rapport. mën am mu am nam amul man rapport bu ma jàpp kay la bëgg ñu andi ko man kay yombal na wax ji man ñu waxi rapport de te défendre tuma euh, le projet donte bëgg naa ko parce que géré wu ma projet bi donc ay nit dem ba ci naan non il rendra compte mais boo rendre compte da ngay rendre compte ci lo gérer ay nit naan non ay faute de gestion mais faute de gestion ki kay def moy ki géré donc juróom-benni at ñuy wax léegi li mu mën a baal keneen ki journaliste yi kay njëkk wax nee naa la journaliste yi njëkk a wax ni que rapport daf ma épinglé dama leen yóbbu ci yoon parce que il faut nga marqué ko bokkul ak kii toog ngay toog euh, ngay toog ak baaba mu naan la waa amee vingt neuf milliards yi na leer danga ko koy bañ ki toog jàkkaarloog ñëpp ni moom yor na ko mi ngeeg moom téye na ko ba veyu procès bi mu taxaw woote ñëw leen ah lii ay waxi caaxaan la kayit yëpp maa ngi moom ca mu yow mu wóor la wér xel la ni que li muy wax amul moom ci boppam moom mi koy wax xam na ni amul. laajal li ngay laaj imam ma bàyyi la ñu soufflé ñu soufflé nono non cest hmm? egg nañ foo xam ni ñi ñi ñi ngi gis lu dul dëgg ñi xam-xam ni que lii du dëgg hmm. te duñu wax ni que lii du dëgg nit di jàppale moroomu nitam ci loo xam ni wóor na ni ko du dëgg mu mooy ci du continuer di wax loolu day wane ni que société ñu nekk ci tànk yi mu tegu du tànk yu baax day wane ni que société ñu nekk ñi bëgg a jiite xamuñu wala buñ xamee it dëgguwuñu buñ dëgguwul it jubuñu parce que nit ku maanduwul rek mooy xam ni que lii du dëgg mais mu koy wax pour yàq xelu mbooloo di ko wax pour yàq euh, euh, euh, deru nit moroomu nitam te tegoo ko ci lenn lu dul sa coobare bakkan ak bëgg féete kaw loolu day fekki aaya bi aaya alxuraan buy wax ni que nit lépp lu mu def ci dund doomu aadama la ñu wax lépp lu mu def ci dund يلا صاح داف كو وات ماغي غين تي وقتو نيكا دومو ادم ليپ لومو ديف بيرتنا بامو ديس كي گم تي جولي دي دوخي دغ تي ام موچ والاسر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا بامو ديس ني گم وعملوا الصالحات تي جولي watawaasaw bil xaq ca nekk ci dëgg ca di ko pratiquer watawaasaw bil sabr ca ànd ak muñ egg nañ ci jamono joo xam ni citoyenneté mënatul génn ak ngëm-ngëm bu fekkee ni que fiñ bëgg a dem dafa sori. Hmm. dama koy wax parce que dernier conseil des ministres bi ñuy passé xam naa après ministre de l'éducation maa ngi ko ci jiitu maa ngay jéggalu dina ci indi ay explications parce que président de la république ci suñu programme yoonu yokkute dugal enseignement religieuse ci école yi daf ci bokkoon mais tay le gëna nek lu dëggu moy ñu jàngal xalé yi diiné parce que dina leen ramener ci bëgg dëgg ci citoyen bu basé wu ci dëgg kenn dootu la nax mm-hmm. wala sax buñ la naxé bo ximmili di nga bayé nax ya top ci donc imam defe naa seen liggéey bokku na ci citoyen sénégalais biñ bëgg a bu ngëm-ngëm laluwul ci li nekk ci suufam bu ngëm-ngëm nekkul base u citoyenneté bi defe naa dañuy tabax rek waaye comme tubaab bi lañuy ñuy mujje foog ngëm-ngëm am ci ngëm-ngëm nag diine la fii diine jullit la ak christianisme ñoom ñaar ñoo ñaari yooyu yëpp ci jikko yu baax ak njub ak njubal lañuy ñuy nekk donc man loolu moo taxoon mu bëgg fi imam parce que certes ñi ngi def concours alxuraan di wax waaye tamit alxuraan yàlla wàccewu ko fi rek pour ñu koy tari sànq yaa ngi def différence entre islam ak politique islam moo njëkk politique parce que yàlla wàccewul diine ji lu dul alxuraan lu dul ñi di ko jàng di ko jëfe di ko jëfe nag mooy politique islamique waaye ñun fii Sénégal li ëpp ci ñun nee nañu république lañ nekk waaye république bu particulier parce que république boo xam ni ñi gëm ñoo fi ëpp Ni gëm seen foi lañ bëgg préserver ñaari diine yi nga xam ne ñooy composé quatre wu population bi donc la majorité pratiquement absolue dañoo bëgg a dund ci ak njub ak dëgg mais pas ci société bo xam ne dañuy naxaate pas société bo xam ne ñi xamul ñooy wax pas société bo xam ne ñi xam tiital nañ leen bañu ñu pas société bo xamni da ngay ragal a gis dëgg tek ci sa baram ni li moy dëgg donte di ci wéet responsabilité boobu ngeen am ak buñ gisee loo xam ne du noonu ñu ni lii du noonu ak lu mu metti metti metti ak lu mu jar jar jar maa ngi remercier bu baax ñëpp sax lañuy ñuy remercier kilifa diine yëpp mais particulièrement Khalifa Baye Niass ci courage bi mu am di assumer ay propos donte day wax dëgg daal ni lii dëgg la donte nit ñi dinañ ma wax parce que nag ala kulli mujj mujj mujj gi nit ki dong ak bàmmeelam te bu eggee ci bàmmeelam lii dëgg ak lu dul dëgg rek la ñuy xam amul keneen ku la fay fekk si donc responsabilité boobu ngeen ci am mooy diine ji war nañ ko gën a mën a wasaare te man gëm naa ni njiitu réew mi décision boobu mu jël pour ñu xool nan la ñuy dugale jàngum diine ci école dina tax sénégalais kenn dootu ko mën a naxati ci diine